di Sud Quotidien njëkk yéenekaay bi nag la mu taxaw moo di lekkooli Sénégal di daara yi jamono ji ak caaxaan ak bari dañ koy seetlu mu di ay ak yeneen yu ko nuru loolee nag njiitu réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na dogal dakk ci lekkooli daara yi maanaam daal di koy waat mbooleem loo xam si ni xeetu naag fo ak caaxaan ñu daal di koy jëlee ci daara yi di lekkooli nag itam ah, joyante boobu naa dem ba gën a sori njàngin waak nañu koy tëgg ak lépp njiitu réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye sant naa ñu def ci ay jéego ngir lépp daal di koy matal ay yéenekaay bi di suddu ko du ñeem moo ñu ko xamal bari nu yéenekaay ak la mu xam ne dikkite ji mu di l'Observateur yéenekaay bi jamono ji ni jàpp liñ ci teg loxo bari na ba àgg ci loolu mu di dorog bi di ko bi yéenekaay bi nag la ñoo xamal moo di mbir mi nag jamono dafa mel ne mi ngi gën a ëppi loxo la ko waral moo di mën naa dem ba àgg ci gàkkal deru réewum Sénégal naka itam Sénégal euh, mën nañu dem ba boole ko réew yi nga xam ne ñoo ëpp li ñu jëfandikoo cocaïne du drogue boobu muytu ko boole ci àdduna nga xam ne nekk ci àdduna wër ba tey Moustapha Niass mi nga xam ne taxaw na tem fi mu toll nii ngir dem dakkalub ñeel wàllum politique ana kan ko fas euh, si ni moo di Adama Faye mi nga xam si ni mbokk la ci Mariam Faye Sall doonoon nekkoon nekk soxnay euh, njiitum réewum Sénégal ba woon di Macky Sall moom nag yoon teg na ko loxo jamono ji mi ngi ci loxo yoon la ko waral moo di coowal suuf la koy toppee mi ngi ci biir di ba tey beneen ne ni ki tey ji jamono ji ñeel ah, la nga xam si danañ ko amal ni ki démb di diisoog euh, jëwri ñi ñu koy wax conseil des ministres tabb yu yees am na mu di ñoo xam ne fal nañ leen yenn ci kër yi nga xam ne ñoo wékku càmm gi di ay direction mi ngi a di ñu xamal ni nañu àndoon ak Macky Sall ku ci mel ni Yaay Fatou Diagne Pape Amath Diallo Baara Ndiaye ñoom ñëpp ba tax yéen ñu xamal ne ki nga ni moo di Sambou Diaggi euh, tamit naka itam moo wuutu ki nga xam si ni moo di Baara Ndiaye ki nga xam si ni moo di euh, am na ko moom Samba Bara Ndiaye moom ma moo fa nekkoon njéeni bi la ñu xamal moo di ndax moom dem na sax euh, euh, ki tey moo di daal dinañ koy tuxal fa mu nekkoon kanu fa teg ba tey yéenekaay bi dikkandi ñu ko leeral mu di ki xam si ni moo boot woon ci ginnaaw mu di secrétaire général moom lañu ngir mu jiite moo di Senelec ba tey yéenekaay bi ñu xamal maanaam récompense la ñu defal noonu la koy yéenekaay bi xamle ba tey yéenekaay bi di kak ñoom ñeneen ci Pastef la ñu bokk ñoo xam ne jox ay bi ji la moo xam ne jii mu di lii quotidien yéenekaay bi la ñu xamal moo di benn daara ju mag ñu koy wax lycée moom lañu fas taxawal foofu la ca Grand Dakar yéenekaay bi la xamal moo di ba Dias moo fas yéene boobu lépp liggéey noonu la ko yéenekaay mu di lu tolloog benn million pas def noonu ñu koy yéenekaay bi xamle ah, door nañu liggéey ba yéenekaay bi di lii quotidien moo ñu ko xamal ba tey bari na yëgle moo xam ne ni ki tey mu di point actu dafa mel ni nag bureau parlementaire bu ah, mu daan bëggoon la la mu bëggoon moo di lu jëm ci ñu daal di lu ñu si ñoo am lu jaar yoon ci suuf ci wetu maritime bi maanaam tefes geeg yeneen yu kumul dafa mel ni ah, bureau parlementaire dafa mel ni loolu dañ ko xaw mooy dañoo dañoo bëgg ni li ñuy wax séparation de pouvoir maanaam kenn ku nekk la nga a liggéey na ko liggéey ñoom comprendre péncum ndawi réew ma jàpp nañu loolee du seenub liggéey ña ko a liggéey nañ ko liggéey député yi nag ci mel ni Guy Marius Sagna jàpp assemblée bi ngom daal péncum ndawi lii bu ñu ko defee leen rek dong ci jublu mu fexe ba bañ a liggéey ci ab liggéeyam noonu la yéenekaay bi xam ne ba tey Guy Marius ci 165 noonu la ko xam ne ci biir yéenekaay bi naka itam euh, daal di joxe ñetti député ngir ñu dem wéyal liggéey bi noonu la koy yéenekaay bi di euh, point actuel ba tey beneen bu yëglekaay ak la moo xam ne ni ki tey jii mu mbokkum jiitum soxna yi njiitum réewum Sénégal ba woon di Macky Sall Adama Faye lay wuyoo moom Adama Faye jamono ji mi ngi ci yéenekaay moo di Adama Faye daanaka ci jamono kenn mënu ko woon ba neen waaye nag loo ci moo di euh, tegoon ko loxo waaye nag jamono ji dafa mel ni takk ji daal dañu koy ba jamono ji mi ngi biir yéenekaay bi bokk na ci euh, ci wàllum njuuj njaaj ñu koy wax escroc nag itam lu jëm ci mbirum suuf yeneen yu ko loo xam ne jaaru ci aw yoon lépp yéenekaay di critique faram fàcce ba tey bari na yëglekaay ak la mu ne ni ki tey mu di libération moom ma nga def si nga xam si ni boo xam ne jamono ji ne daal di koy euh, génnee maanaam demale ci euh, kër goo xam ne wala boog pàkk di terrain boo xam ne jaar yoon mu toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar ko ak juróom ci ay millions noonu la koy yéenekaay bi xam le mu di pàkk di terrain yoo xam ne amul ay këyitu leer ñu xam ne këyit yi ca dëgg-dëgg ah, jaar na ci aw yoon noonu lañ koy topp mi ngi ci biir ba tey ki nga xam si ni moo di ah, directeur mbay Ndiaye moom moo jiite li nga xam si ni moo di ah, douane bu réewum Sénégal moom itam yëkkati na ay kàddu la moo xam ne moo di jamono gën taxaw daal di gën a dëggal sunu bopp ci lu jëm ci la ko ci xarala yi naka itam lépp lu jëm ci wàllum ñàkk ànd ak taxaw résistance ñu ko nuru bu mu ñu tee amal sunu liggéey ci nam waree maanaam nañu bu mu ñu tee jëm ca kanam nuñu la ko xam le moom Mbaye Niang moo jiite moom Mbaye Ndiaye moo jiite douane bu réewum Sénégal sur ça ma nga taxawaay itam ci li nga xam si ni mooy ñeel ki nga xam si ni moo di départ Macky Sall APR Macky Sall daal di génn li nga xam si ni moo di biir APR jamono ji naka itam ki nga xam si ni moo di député bu ñuy wax Babacar Ndiaye Babacar Biaye Babacar Biaye Boubacar Biaye ay kàddu bi ab député mi tam koy indi ci biir yéenekaay bi ñeel ëllëgu politique gu ci biir yéenekaay bi di source bés bi jour la mu taxaw ma nga jëm ci mbirum galak galak soo ko diggee moo di impôt yi nga xam ne ñu ko jëmale ci këru tas xabaar yi ngir ñu fay ko ñenn ci ñoom sax daal nañ tëj seen i sàq moo di seen i daal nañ koy bloqué noonu la ko bi di bés bi jour daal di xamle yéenekaay bi nag la mu jàpp moo di am na ci loo xam njot yoo xam ñoom lañ leen xamal mooy du ñu li nga xam si ni moo di galak di impôt ki xam si ni moo di Mamadou Ibra Kane ay kàddu mi ngi ci biir yéenekaay bi jëwriñ ji nag jot na sëkk di woy teggi loxoom ci li nga xam si ni mooy sàq di compte ñeel këri tas xabaar yi noonu la ko yéen noonu la ko xamle ci biir ay yéenekaay ba xam si ñoo di waa seref amalu am ndaje nga waxtaan ak nga xam si ni moo di njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci lu jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko dund ñoom këri tas xabaar yi ba tey yéenekaay moom la ci la taxaw ak yenn ci ay këyit xabaar yoo xam ne mi ngi ci xëdu njëkk yéenekaay bi yéenekaay bi ñu xamal moo di Macky dafa mel ni dafa euh, xam si moo di Bassirou Diomaye Faye moo di na xupp ngir ñu nga xam si ni ci biir yéenekaay bi mu di lu tolloon ci euh, juróom-ñett fukk di euh, ñeen fukk di 40 ci ay milliards noonu la koy yéenekaay bi xamle ba tey yéenekaay bi taxaw na ci det boobu di bor boobu nga xam ne daal dañ koy amee di galak SEDEF ak taxawaay ban ci fas yéene amal jamono ji di sàkku ci njiitum réew mi mu daal di teggi loxo ñu la ko xam ne ci biir yéenekaay ba tey bari ko mi ngi ci xëdu njëkk yor yor bi moom Madiambal Diagne la moo xam ne nag moo di ca dëgg-dëgg wax dëgg yàlla noppiwul ngir fay boobu la bor boo xam ne wax nañu da ko amee mu di boo xam ne da koo amee noonu da ko xam ne ci biir yéenekaay ba tey Macky Sall bi mu nekkee sax ci nguur gi daal nañ tëj ay seeni contact yeneen yu ko nuru ba tey moom Madiambal la moo xam na yoo xam ni euh, ki koy amal lépp lépp mooy ki nga xam si ni moo di inspecteur euh, des impôts moom itam militaire Pastef la la ko xam ne ci biir ay yéenekaay bi ba tey jamono moo di lenn rek mooy saafara di solution bi mu di ñu daal di tëj suñuy compte wala ñu daal di tëj suñuy noonu la ko xam ne ci biir yéenekaay ma jàmbal jaañ ba tey beneen yéenekaay la moo xam ne ni ki tey jii mu di enquête yéenekaay bi la moo di lu jëm defar tooginu politique am moom Amadou Ba mi nga xam ne jamono ji la wax moo di mooy chef de l'opposition maanaam mooy ku jéggi moom Amadou Ba jamono ji ma ngay ak ay pexe ngir xool naka la mën def ngir defal ah, ëllëgu politique am noonu la ko yéene kaay bi di enquête daal xam le ba tey Amadou Ba moo nekk ci xët bu njëkk direct news yéen a kaay bi dañu xamal a a kaay bi xam ne ci moom sax moo toppoon ci ginnaaw ki nga xam si ni moo di euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye mbir njiitum réew mi ci jongante yi nga xam ne ñoom la ñu weesu maanaam moo juróon ñaari toogo ba di deuxième place tàggat yaram mooy topp ak ndes tuut lañ ci dikk daal gën a faram-fàcce Baye Cheikh mooy li gën fës ci yéen tey ji Baye Birahim Euh, njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na dogal dogal bi fas yéene jël moo di simbëg feccak